asalaamaaleykum mbokki internet yi am mbégte ak banex dalal leen fi ci seen euh, télévision Antv tay nak ñu ngi fi ci euh, Grand Yoff bu ñu Grand Yoff euh, ñu ne xaar Yalla tay nak uh, ñu ñëw fi ci bëss bi reuy bi nga xamantene ni ñu ngi ko jagleel uh, mas mas mbay mas mbay kën doon ko présenter dëkk bi ñu nekk modi sénégal rawati rawatina xaar yalla bi nga xamantene fi la mas mbay ne mas mbay nekk kat sabar ba nga xamantene dafa dem ba nekk mak jël nand yi jaggal ko ay domam doomam mi seen xol sedd ci lool ci seen papa lu mu def ba tax na ñoom it ñu sargal ko bëss bu reuy bi duma def dara luddul nga topp ma ñu dem ci biir ñu xol ambiance ñu dund na internet ñuy seetaan ñu dem ci biir waaw man yii lay def man may menace Modou bàyyi leen ngeen seetaan ambiance sa kanam tuuti ma dellu si waat ni mu leen ko waxee woon maa ngi ne gis fi benn xale féroce salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam nuyu naa la. fay naa la noo tudd Ndeye Khady soxna si mën nga ma wax tey la moo waral sa teewaay fii si bés bi. Euh, chef yi mi organisé sabar bi sama cousin la sama maam la ñuy sargal tey si sabar mu ñëw. ok c'est bien est-ce que mën nga ñu defal tuuti témoignage si paa bi nga xamante ni moom la ñuy sargal mu di Mass Mbaye. waaw sama maam la bu neex a safoo mu ñëw ñu mel nii ñu mel xam am na nu mu mel nii du ñuy dagg suñu nelaw ñoo toog fii di ko di ko seetaan lépp mbokk la te mbokk ndey ku jur boo tax ñu bàyyi suñu nelaw ñoo merci beaucoup. ok ba tey am na ko mu dendal soxna si nuyu naa la. may naa la. ci loo nekk. maa ngi mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. ci jàmm bu baax. soxna si est-ce que mën nga ñu wax euh, luy sa teewaay tey si bés bi. en fait Cheikh Faye man ak moom ay cousin lañ suñu ñaari papa yi ñoo bokk. mais soxna si sañ-sañ pourquoi yéen xale yi fii ngeen féroce. lekk simple rek. na moo leen dara. man yi dama koy ok merci. voilà comme euh, ni ma leen ko waxee rek ba tey ñu ngi fii ci xaar yàlla tey nag euh, ay doomu euh, Mass Mbaye di sargal seen papa du ma def dara lu dul interroger grande dame bee may seen si ginnaaw. ay doom ni ma jëlee la ma neexee nag ma jëlee la nii. macha allah macha allah danoo ñëw ci sabar gi sabar gi neex lool ko tuddee ko seen baay mu ànd ceeg ndeg nekk a rek yàlla baax na ko gisandoo mbokk internet yi defe naa ambiance bi dugg na seen i xol coqataan na leen ko bu baax ba tax na maa ngi fi taxaw ak uh, doomu paa bi kii mooy uh, taaw uh, si Mass Mbaye maa ngi lay waaw maa ngi lay fay mbaa yaa ngi si jàmm waaw bu baax ah, Babacar ndax mën nga ma expliquer tuuti si bés bi nga xam ne yéen doom yi yéen a ko sargal seen papa Mass Mbaye. dëgg la parce que day papa joo xam ne nii papa ju man papa bëgg ay njabootam bu mu ci wéetal nga yaakaar ne yow la gën a wulal la sabar fii sabar fii waaw ñee samay rakk lañ ñii tamit samay rakk lañ ñoo jógee parcelle comme dañuy sagal paa bi ñoom ñëpp fii di sabar yi ku nekk war a sa bopp moom tey fu ngeen nar a yóbbu waa xaar yàlla sama ngéwél voilà ngéwél sama ngéwél rek ngéwél rek lay nii la doon xam fooree waa tukki si bañ ñu san bëri la ndax ñun Aliou ñun Aliou ku ma ñëw ba may tax ba balaa dégg fukki mbala ñaar kaat kii di xarit ngoone bi rek xarit ngoone lii rek la ñu war. dëggal lii wala lu koy fay. dara. dara. gisandoo mbokk euh, internet yi defe naa ne ku xool fii xam ne bésu borom lay tollool ba tax na bésu Mass Mbaye bi du yomb benn yoon bu fecci liir ba neexee nday tey sa mbagg du ma def dara lu dul ñëw introduire soxna si nga xam ne moom laa jàkkaar mu di waay juru xale yi du ma def dara lu dul dem ci moom salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. waa Hann nuyu nañ la. ñoo leen di fay bu baax ñoo leen di fay bu baax. soxna Mass Mbaye. waaw maay soxna Mass Mbaye waaw maay. yaay booy ak tey bés bi ni mu mel. waa Grand wuy si la lan nga ñu mun a wax. xanaa di rafet lu ñëw bi. baax a baax di ñaan yàlla ñu koy def comme tey bii mooy première édition bi ñu koy def ay ati ati at yàlla bàyyi ñu ñun ñëpp fekke ko yéen aussi ngeen continuer di ko filmer chaque année waaw. yaay mën nga ñu wax bés bi tey jii lu mu lu mu lu mu apporter daal. waaw waaw tey bés bi man dafa sedd sama xol daal parce que xale yi. man 89 laa seen papa bi may sëy seen papa dama fekk seen papa muy tëgg sabar léegi bi muy tëgg sabar xale yi judd ñoom tamit jàng nañu école mais soriwuñ ci xam nga rek loo gis doonante la seen maam moo ko doon def bàyyi seen papa jël ñoom aussi ñuy ànd seen papa di tëgg ñuy ànd seen papa di tëgg ba yàlla def la njëkk a nekk bi mu jógee Sorano ñu affecté ko orchestre national mu nekk orchestre national ba léegi mu nekk fa chargé de mission tëggatu léegi nag sabar yi mu doon tëgg mu bàyyi ko xale yi xale yi di ci tëgg nag di ci seen bopp léegi nag ñu dem nag ba at bi ci gën a ndaw moom moo sax am xalaat bi ne comme sama papa dafa tëgg ba bàyyi ñuy ànd ak moom te vraiment amuñu ci dara luñ ci yàq suñu der ñaaw ji dama koy sargal dama koy def ren première édition te may ñaan yàlla chaque année ma koy def loolu moo waral bés merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup. defe naa ne ñoo ko déggandoo li yaayu xale yi wax leer na si nopp yi du def dara lu dul ki nga xamante ni moo di Mass Mbaye Mass Mbaye di doomu Grand Yoff bu ñu nee Grand Yoff du ñu bàyyee xaar yàlla moom mi nga xam ne nag def na lu rëy ci aar bi nga xamante ni mooy aaru sénégalais si tëgg tëgg na ba jël ay ndënd jébal ko ay doomam kon kooku deseetul dara doomam ay doomam jàppal sargal sunu papa papa mas may nuyu na la. mais ma fi fay la. mbaa yang ci si bu baax. ma ngi sant yalla bu baax baax di sant sama ñaari wajuri bu ma sant naa di sant yàlla bu baax a baax di sant si Tuubaa nag ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi waajur si Tuubaa rek laa si yow Papa Mass Mbaye ku ne xam na ne li nga def yombul nga tëdd tëgg ba mënatoo nga jël ay nandu jébbal ko say doom est ce que loolu mun nga ñuy si leer. waaw xam nga li nga doon bi sama papa di may 78 la may 78 mooy. mooy bëgg xam ne nekk Bale Mansour ba yàlla dogal ma jóge Bale Mansour ngay dem Sorano Sorano lañ ma jëlee ak sama orchestre donc ma def fa 27 ans donc 37 donc 37 ans nag su ma tëggee Sorano tëgg Bale Mansour tëgg orchestre national mun a bàyyi ma xale yi tëgg donc maa am ci ñoom yaakaar te yaakaar bi ma yàlla yaakaar bi tas parce que yaakaar boobu la suma waajur amoon ci man ñu nag samay doom yoo xam ne wax dëgg yàlla bés bi may defal mu neex ma wala papa la ñu sargal donc boole ko seen mag dëkk Europe ma sargal neex papa nga organiser bés bu nii say doom organiser ko waa Grand Yoff yëpp wuyu la waa xaar yàlla yëpp wuyu la ku nekk jaay lalam ñëw toog fii loolu lan la la apporter. waaw parce que yëg-yëg bi maam mooy euh, ñun bu ñu juddee Medina yaroo Medina ñu toxal diggante Gibraltar ak Centenaire ñu tuddoon fii nii man ma juddoo foofu. ñu soxal ñu 1965 sama papa ñëw dëkk fii ma dëkk xale yi juddoo sama non man xaar yàlla suma fierté parce que xaar yàlla man nu ma mel xaar yàlla parce que damay wax ne métier bi ñu yor dafa noobu man waxoon naa su may yóbbu métier may jàng école dama leen waxoon na leen man dama bëgg tëgg sama te bu ma tëggee sama dama bëgg nekk fonctionnaire di ci fayee donc su ma ci demee ba nekk ci fi di yàlla def may toog ci bureau donc xaar yàlla suma fierté moom laa am moom laay tiitaroo Ibou Mbaye Thiam mii ma dëkk xaar yàlla di xaar yàlla di xaar kenn dëgg la boobu gone la du ma def noonu dama leen di wax ne la métier bi soo ko fooyee mu fooyee la du ma du ma tux yàmba du ma naan sànni te yàlla dimbali na ma dem naa dëkk kontaan naa jërëjëf. defe naa li tontoo Mass Mbaye wax leer na trop ba tax na moom moo tax dooma bi di sargal guddi gi